ji li waral jotaay bi mooy ñu jóg ngir yàq dalal xel bu Serigne Saliou ndax ñun dañ ko woote fii ci Touba tàmbalee ko fii jot ndigal ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ngir wéyal liggéey bi di taxawu ñi wér di xel en même temps di taxawu eh, ñi am ay problème di ñu fekk ci bureau bii ñi jaaxle ñi feebar ñi abandonné wala ñi nga xam ne seen néegi sëy dafa yëngu di wàcc terrain bi di sang ñi wér di leen jàppale ma woote ko un an nag yoo xam ne nit ñëpp ràññee nañ ma ci ah, ba jamono yi diggante fee ñaari weer la nit ñi tàmbale wuy si biñ tàmbalee wuyu si nag am ñoo xam ne bi ñëwee dañ may fexeel pour daaneel ma pour euh, suuxal ma pour jël dalal xel bu Serigne Saliou fan yi nag euh, defar nañ seen tiset yu bulo euh, di wër si mbedd yi di karawaan di laaj ab xaalis ñoom dañoo ñëwoon ni dañ cee bëgg a bokk léegi fekk loolu ñëru leen Euh, di wër di karawaan ci mbedd yi waaye man mu Modou Xaban dëkk bi yëpp xàmmee nañ ma mbedd bu ne dugg naa fa eh, ngir woote dalal xel gi ata ngi yàllaa ngi nii ma dugg si lu ne ma daj ko ci bàyyi sama métier lépp jàpp liggéey bi lu ne dégg naa ko si bi may doog a tàmbali dëkk bi koo dajal man na ci seede loolu nag lañ bëgg fësal ñu nit borom tiset bi bulo yooyu fu nu jaar di karawaan ci dalal xel bu Serigne Saliou moomuñu ko wootewuñ ko te jotuñu ndigal ci Cheikh Mamadou Mountakha ah. waaw ñoom ñoom ñoo jekki-jekki bëgg ma cee simpi man nii euh, dañuy def seen dara xelu sëñ Saliou daal di defar tiset 107 tiset yi defar yeneen tiset yu bulo mm. oh, di wër di wax mm. te kenn ku ci ne ci ñoom euh, amoo fi sax weer waaw amoo ci liggéey bi sax weer te liggéey bi maa ko woote maa laan luye oto yi di def lépp euh, def ko nag muy sama jaam yàlla ak sama liggéey Serigne Touba mm. ànd ko mbokki taalibe yii oh, waaw bi ma koy samp it am naa ci ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha ñoom nag nee nañ ay ndigal yooyu yëpp lijjantiwuñ ko waaw ñoo ñoo ngi gaawantu nag naan dañuy defar ay kiit waaye nee naa leen fii ci Touba ndigalu mun taxaa moo fiy dox te dëgg moo fiy dox euh, man man ngeen a jaayee feneen doole ba mu des fii dëkk bi duñ ko nango man bu ma ko nangoo yi dëkk bi duñ ko du nango waaw est-ce que problème bi waaw waxaat naa ko mun taxaa mu ñaanal ma ci ni ma wëyal foo ci tollu nga ñëw wax ma ko moo tax tamit ma woo leen pour ngeen ñëw ñu ñu annoncé affaire yi waaw euh, waaw lan euh, euh, ñëwee dañoo fekk ni ma daan doxee nit ñi di barkeelu may dugg si marché bi yenn saa yi di màjjaal ñuy barkeelu ma ñëw fii di ci dimbali néew gi doole gi ak aussi di wàcc terrain bi di ci sang ñi wéradi sama baay ji di ma jàppale ci ay yére moom moo yor koddaa yu maam jaara bokk na ci di ma jàppale ci yére ma ci jox ñi wéradi xel di leen sang ak yooyu bi ñëwee nag ñu ni ma ñu dal sama kaw léegi xaalis bu bëri nit ñi jox nañ la ko. te dégguñ benn borom xaalis boo xam ni financé na ma wala jàppale na ma ñu ne ma denc nga xaalis bu bëri te loolu danga koy leeral te yàlla xam na ni cent franc yeeg juróom yi ci laa doon liggéeyee liggéey bii marché bi ku nekk nga fii dugg di yalwaan te man weccet yi ñu ma doon jox ci laa liggéey lii amul benn borom alal bu mën a taxaw ni maay financé dalal xel gi wala maa koy fayal ab bureau wala maa koy maa koy jox oto yooyu oto yi dama koy loué waaw añ yëg yëpp maa ko resoon di ko taal fii di ko toggalu euh, waaw ba liggéey bi man di dox euh, kuréel gi ba ñu ñu ko wutali këyit mais dañoo ñëw ñu ne leen da ngeen di dal waaw léegi nag ñoom ñu ni ñu gaawantu bëgg wut seen i këyit ci kaaw gaawantu njëkk njëkkalante lu mel noonu waaye liggéey bi yaakaar naa vidéo yi ma ci liggéey yaakaar naa adduna bi yëpp gis nañ ko adduna yëpp àdduna bépp gis nañ ko loo nekk un an nag ci dëkk bi di ko woote ba ba ren ñu koy soog a wuy si yaakaar naa dëkk bi xam nañ ma ràññee nañ ma waaw xam nañ ni mu demee lii man maa ko créé xalaat ko tudde ko dalal xel bu Sëriñ Saaliw bi may door a jóg woowuma kenn nañ ànd damaa jël sama alal financé ko ci waaw fi tijji bureau bi finance sama alal def publicité yi ba alal di jeex ma jaay samay matériel def ko ci ba mu jeex taxul mu sotti may dugg si marché bi yor sama rajo di màjjaal di ko def si liggéey bi kon li ma ci daj ñoom tey jii ñu ni dañ koo bëgg a nangu Euh, loolu du mën a ne am nga àdduna da ngay dox ci li nga nekk ba ña la cay fekk fekk si la si mais doon imposé nit ñi tey tey danga may defal nii wala da nga jàppale nit ñi li ñuy def ci seen xaalisu bopp wala borom alal li ñuy def seen xaalisu bopp ci seen sago lañ koy defee yow yaay nekk ci li nga nekk bañ am yéene pour jàppale la àdduna suuf si suñ borom da ko bind ci ay fan te mënoon ko bind ci benn fan wan doomu aadama ni li nga lépp da da ngay dox ndànk-ndànk ba keroog nga koy am kon nag ñoom liggéey bii biñ ci ñëwee dana waroon a def ndànk-ndànk ba ñi ñuy jàppale jàppale ñu ndax kër bu ku xëy jox la kër Masamba mënu koo lekk mu ma dem ba mënu koo lekk ku xëy jox la oto loo mën a luubal luubal ñu ne oto bii yéen lañ ko jox mënoo lekk oto ba munoo koo naan ci liggéey bi la jëm kon nag euh, wax dëgg yàlla te man téléphone bu ma wuyu ñu defee ni nit ñaa ngi may jox xaalis te yàlla xam na ni ña am ay problème ñoo may woo ñi jaaxle ñoo may woo waaw. ñun liñ ciy duggee rek mooy li ñu duggal ci liggéey bi. li ñu dugal ci liggéey mooy euh, moom xabaan mii moom lan dégg muy def émission rajo Lamp FM moo xaasim cuun bi ñu ko dégloo ba dégg ko mu nekk ci dalal xel bu euh, Serigne Saliou Mbacké di toppatoo it ñi nga xam ne ñoom ñoo wéradi wéradi xel te nekk ci mbedd yi ak ñi nga xam ne ñoo am problème ma déglu ko ba émission bi jeex émission bi dugg liggéey liggéey bi dugg ma lool ma woo leen téléphone xamal leen ne leen Serigne Mbacké Diagne teenu maam Cheikh jaayante naa képp koo xam ne kii téye ngeen ko mu mu wéradi wéradi ki xel ci mbedd yi mm-hmm. jaayante naa koo daayam mm-hmm. man loolu moom ma diggool ci liggéey bi mm-hmm. liggéey bi payuk sëriñ tubaa rekk laa ci séntu ab dërëm dugaluma ci dërëm buy jóge ci xabaan jëm si ci man séntuwuma ko ci ni ma ko dégge muy liggéeyal sëriñ tubaa ak ñi ñuy dimbale loolu moom ma ci dugal te itam nag xaban mii laa ko fas yéene àndal ndax moom laa ci xamoon ci dóobi ba bisu tey kon moom laa ci fas yéenee àndal. Mm. maa ngi koy wax it mboolem daayire maam jaara yi nga xam ne. Mm. déggoon na ma ma ci liggéey ba yëkkati seen koddaay di ma ko jox mm. maa ngi leen di xamal lii dama ko dafa yoroon émission bi ba yàgg mu wëlbatiku yëkkati émission bi teg ko ci sama loxo man ma di ko def ci Lamp ma ànd ko ak tabara eh, tabara puy keroog bi ma njëkkee ñëw di ko seet si ca suuf fee laa ko fekk bi ma ñëwee kenn nit dong ki nga xam ne moom mii moo ko fi yoroon di ko fay xaalis mu par weer mm. moom laa ko fekk mu ñu yore jenn jëmm joo xam ne ji ku am kàttan la mm. nekk ci digg tali bi mm. moom xabaan moo arrêté oto yi ba ñu taxaw mu jël ko xëcc ko ba ci mbedd bi ba ba ci territoire bi mu wat ko ba mu set mu mu mu sang ko daal di wëlbati ko làmb poos yi nga xam ne moom la soloon mu fekk ci juróom benn fukki dërëm ak juróom du ma ko fàtte mukk mu daan lii de ci poosam ne woon mm. moom mii moo yëkkati 3000 francs teg ca mm. daal di koy jox mm. kooka daal di bëgg a jël yet wi ak yi jëm yoroon xabaar ko déet lii moom bàyyil ma téyel la ko yet la yoroon ak jaasi kon dafa mel ne loola xeex la boo xam ne bii xeexu état moo ko waroon a xeex borom doole yi ñoo waroon a euh, yëf yooyee kon xabaan dafa mel ne loolu liggéeyal sunu borom bu ruwéer téng bu mu def bu mu def la ndax kookee mënoon naa yor yetamoo ak jaasi ji faagaagal ay doomu aadama te loolu man maa ci teg sama bët mu téye jaas ya ak yet wa jox ko 3000 francs ya mm. booleeg 325 ya mm. mu mu mu mbooleeg moom dem